tey ñu gis la ci Galsen Hip Hop Awards bi ci nomination album solo alors sa teewaay fii est que yaa ngi xaar récompense bi. waaw waaw tey ñoo ngi si je pense Galsen Hip mooy la soirée du rap Galsen la soirée bi nga xam ne moom la ñuy on va dire njukkale ñi nga njukkal ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy liggéey ci rab bi vraiment pendant toute l'année donc oui on est là comme tous les autres artistes. Euh, mais on est là aussi en tant que nominé, en tant que, euh, je dirais pas compétiteur, mais voilà, nous avons en tout cas, nous ci fil pour, euh, pour avoir ay récompenses. Et euh, on espère voilà, qu'on à la sortie, dinañ am ay récompenses yu ñuy yibbaaleel tey yu ñu yóbbaale gaale bu ñuy ñibbi incha allah. ak album bi yëpp ci job album qualité la ñëpp apprécier nañ ko tey nga ñëw présenté ko tey lan ngay xaar ci. waaw waaw album bi moom comme ni nga ko xamee ak ni nga ko waxee dem nañ ci beaucoup beaucoup de travail donc euh, euh, fait plaisir mu bokk ci ci ci ci album yi nekk en lice pour le meilleur album de l'année mais c'est pas aussi une surprise parce que je pense que liggéey bi moo ngi ci liggéey bi ci war def nañ ko si et hormis cela voilà on est dans d'autres catégories aussi hormis ce, cette catégorie Euh, espérons que voilà dinañ dinañ catégorie bu si nekk rek espérons que dinañ tirer suñu épingle du jeu incha mais déjà nomination bi def na la am nga si satisfaction. waaw bien sûr bien parce que c'est toujours ça je pense que day ni rek liggéey bi jaar na yoon donc nomination bi c'est clair que ça fait plaisir am nañ ci satisfaction euh, comme ni nga ko waxee c'est ça quoi ça fait plaisir quand même. ñi dénigré nag ñoo naan euh, gëmuñu ko gëmuñu euh, cérémonie bi gëmuñu lii nañ leen ci génne lan nga leen wax rappeur pour man chacun de nous a ses propres raisons ku si nekk si ñun rek am na loo xam ne moom nga d'accord ak loo xam ne d aussi. Parce que, donc aujourd'hui, euh, ñooñu man je vais pas du ma leen ne ils ont pas raison parce qu'ils ont leur bu ñu demee ba wax lool rek am na lu tax. tu bu ñu ba d' accordul si dara am na lu tax parce que man mii di wax ak yow am na si yu ma d' accordul yu bëri aussi mais du tee voilà. comme du ma ci dugg parce que tey moom garaawul tey lañ glissé lañ bàyyi mu glissé rek xam nga mais je veux dire juste dire que voilà on a tous nos raisons on a tous li nga xam ne mooy tax ñu ñëw fii wala bañ fi ñëw wala bokk wala mais ku si nekk assume quoi c'est tout. waaw ah, mais rappeur dañuy sol costume de. non man bàyyi ma wax la man nag. tur bi nag rappeur yi naka <laughs> ma jub. rappeur yi dañuy sol costume xoolal ak it fu génn. aywa tëjal tëjal ñu xool. tegal ñu xool. <laughs> waaw ah ak i seng senga mi ngi cool <laughs> mi ngi cool merci <laughs>